buntu bi nga xam ne fa la jaam bi di toll di ñaan boroomam subhanahu wa taala loolu nag tombeek fukkeelu numéro tey mooy fukkeelu numéro bi ci tafsir bi insha allah eh, démb jotoon nañoo jël ihdina sirat almustaqim ñu ne jaam bi loolu mooy ñaan gim njëkk ñaan boroomam ci biir fatiha bi te loolu mooy ñaan bi ëpp solo ci dund doomu aadama bi ndax doomu aadama feek mi ngi dund te fekk tegewul ci yoon wi rek dund gi amagul benn sens ngir mu am njariñ mooy dafay fekk ne dund gi yépp daf koy teg ci yoon wi nga xam ne ci la boroomam bëgg mu jaar ci comme moom doomu aadama bi lott na ngir xam dëgg-dëgg yoon wi nga xam ne moom la yàlla bëgg nag ko ñaan moom ne ko yàlla yàlla nga ñu gindi boo ñu gindee itam bu mu nekk gindi goo xam ne su subaa ñu réeraat waaye na nekk gindi goo xam ne gu saxla ci lan e, wala ci ban yoon mu ne ko yoon bi nga xam ne mooy yoon wi jub xocc wi amul wenn ndëngte nga xam ne du ma saaraan duma ma déraper du ma wàcc jubal rekk tegu ci yoon wi nga saxal ma ca yoon woowu nag moom lañu ñu jàngoon démb te wax nañ ne yoon wi jubluwu ci ne aw yoon wu ñuy gis di ci doxee ay tànk waaye dëgg ju leer naññ ju amul genn lënt moo tax muy wax waxoon nañ tamit ne siraata danañ ko jànge njàngin yu wuute danañ ko jàngee ci zaay danañ ko jàngee ci siin wax siraata danañ wax ziraata eh, yooyu yëpp am na waaye siraata bi saad mooy li nga xam ne moom moo gën a notu moo gën a bari moo ëpp ñu koy jànge eh, loolu mooy li nga xam ne moom la waxoon démb yoon woowu nag ba tey ci lañu nekk ndax tey bu ñëwee eh, jaam bi dafay leeral yoon wi mu bëgg gën ko asiraatal mustaqim rek lu leer la waaye mu am leneen lu mu ci yokk loo xam ne yokk googu dafa am yeneeni faayida yu ci nekk yeneeni njariñ mooy gannaaw bi mu waxee ihdina siraatal mustaqim mu teg ca ne siraatal ladina an'amta alayhim loolu geneenuk leeral la gu aju ci limu njëkkoon a wax loolu nag ci arab loolu la ñuy tuddee ci maqaama bi ci fii ñu taxaw ni lii mu def nii moom la ñuy tuddee badal badal mooy ci naxu li mu njëkkoon a wax mooy as-siraat al-mustaqim loola ci jëmmi boppam mooy siraat alladina an'amta alayhim siraat al-mustaqim bi ma doon ñaan mooy siraat alladina an'amta alayhim loolu la tuddee badal waaye fii tamit mënees na ko tuddee atfu bayaan maanaam loo xam ne dañ ko cee yokk ngirug leeral dañ ko cee ataf ngir ak euh, leeral euh, kon ñaar yëpp mën na ko dekk maanaam mën nañoo wax ne siraat alladina an'amta alayhim loolu badal la ci as-siraat al mustaqim mën nañoo wax itam ne atfu bayaan la atfu bayan. la lol nak borom xam-xam yi ci maqama ji ci fi ñu taxaw ni indi nañ fi wax ju bare bare ci diggante lan la waye ñaari wax yoy yépp ñoo bok fenn fu ñuy mujjé ndax ñom ñaar ñoo yam ndax li nga xamne ne lañu tuddé atfu bayan, lenn la rek ci badal te mom lañu wax al badalul mutabiq lol rek mooy atfu danak daanaka eh, Delu gim ci delu rek wax ko maanaam ñëw wax ihdina siraatal mustaqim ba noppi daat ne siraatal lazina loolu njariñ di ci am ñaari njariñ nga cee amee xam nga mënoon naa wax rek ihdina siraatal lazina an'amta alayhim door a teg almustaqim maanaam ihdina siraatal lazina an'amta alayhim almustaqim su boobaa mbir mi day jub waaye mu wax ihdina siraatal mustaqim ba noppi doora wax siraatal ladina kooku dafa am ñaari faayida yu cay am ñaari njariñ yu mu ci amee ci tëggin wii njariñ lu njëkk li mooy leeral gi muy leeral ne yoon wi nga xam ne moom lañuy e, sàkku ku ñu ca di jëme yoon woowa yoonu e, texe la wu leer naññ wu neex a jaar loolu daf ko leeral ca njëkk ba njaalbeen nga mooy ihdina siraata mustaqim amma la mu ca teg nag wax siraata alladina an'amta alayhim yoonu gaa yi nga xam ne yàlla yow yaa xéewal ci seen kaw yaa leen xéewale yokk boobu loolu gën a leeral ngëneeli yoon wala te loolu ñu ngi ko mën a amee rek ci tëggin wii mu ko tëgg ihdina siraatal mustaqim siraatal ladina maanaam siraatal mustaqim jiñ jëkkoon wax mooy leeral na yoon woowu yoonu texe la te yoon wu leer la te yoon wu neex a jaar la te yoon wu wu jub la loolu yaa ngi koy amee ca lële mu yokk ci siraatal ladina an'amta alayhim gën laa leeral ngëneeli yoon woowa ngëneeli yoon loolu mooy njariñ li njëkk liñ ci amee ñaareel ba mooy eh, jëmmi daal jii mu ci def badal ji mu ci def nga xam ne day wax siraatal ihdina siraatal mustaqim ba pare door a wax siraatal ladina an'amta alayhim loolu dafa am beneen njariñ bu muy am mooy gën a dooleel wala gën a saxal eh, ngëneeli yoon woowa ci eh, xoli ñi nga xam ne ñooy way gëm yi nga xam ne ñoom lañuy jàngal ñaan gi su ko defee dafay am ci biir wax ji lu ñuy tuddee at tawkiidul maanawi dafa mel ne wax ji dañ koy gën a dëgëral maanaam bu ma nee yàlla yàlla nga ma gindi ci yoon wi nga xam ne moom mooy yoonu jubbi mooy asaraata mustaqim ba noppi damay gën a dëgëral yoon wi ma bëgg gën a dëgëral gi mooy wax ji may wax ne siraata alladina anamta alayhim loola dama koy gën a waaye dafay gën a dëgëral loola daf koy gën a saxal ci ñi nga xam ne ñooy way gëm yi su ko defee ci saa si ñoom ñu xam euh, li nga xam ne moom mooy wala bokk gën a gëm li nga xam ne moom mooy yoon wi gën ko sopp euh, am na beneen leeral boo xam ne dafay am ci biir ni mu tëggee tëggin wi mooy dafay gën a leeral dafay gën a leeral li nga xam ne moom mooy yoon wi assiraatal mustaqim lay gën a leeral di leeral nan lañ koy dégge eh, di leeral mooy lan ak ñan ñoo ci jaar loolu ñu ngi koy amee ci tëggin wi mu ko tëgg ihdina siraatal mustaqim ba noppi door a wax siraatal ladina an'amta alayhim yàlla yàlla nga ñu gindi ci yoon wu jub bi loolu rek doyoon na waaye mu yokk ci ne mooy yoonu ñi nga xam ne yaa leen xéewale yaa dotti ci ñoom ay xéewal kooku day gën a leeral yoon wi ñan ñoo ci jaar ak yoon wi nan la nan la tëddee ci tëggin woowa lañ koy lañ koy lañ koy amee e, loolu nag baamu gim ko baamu kooku am na uslub balaax bu rëy rëy rëy bu ci nekk waaye e, loola dafay gën a guddal e, sunu wax ji tànn gim tànn nag pour melal as-siraat al-mustaqim mu melale ko mënoon na ko melale yeneen i melokaan yu bare bare waaye lan moo tax mu tànn di ko melale baat bii di ko melalee ne siraat alladina an'amta alayhim siraat alladina an'amta alayhim loolu melo la ci ci siraat al-mustaqim lan moo tax nag mu tànn wax ne mooy yoonu ñi nga xam ne yaa leen xéewale lu tax waxul leneen lu tax waxul mooy yoonu nàngam mooy yoonu aljana wala mooy yoonu yàlla wala mooy mu tànn rek siraata alladina anamta alayhim maanaam wax jooju mu melale ko li nga xam ne moom mooy ihdina siraata mustaqim assiraata mustaqim googu moom la melale ne mooy siraata alladina anamta alayhim loolu dafa am beneen xeetu ñaanin bu rafet bu nekk ci biir wax ji te waxoon nañ leen ne suratul fatiha dafa ñëw ngir jàngale naka la ñuy e, déeyonte ak yàlla naka la ak moom ci misaal nit koo gis rek nga ne ko e, maa ngi sàkku nga may ma nangam ak nangam nang comme ni nga ko mayee diw bu ne comme ni nga ko mayee diw wala nga jaarale ma yoon wi nga xam fa nga jaaral diw wala yu mel noonu loolu ci nit ku tedd ku ñuy waxal daf koy gën a pousser pour mu def loolu ngay ñaan yow daf koy gën a pousser pour mu def loolu ngay ñaan ndax lan moo di ne e, loolu daf koy xamal ne moom ku tedd la woon démb avant yow ngay wax ak moom muy benn ñaareel ba mooy loolu moom mu defal la ko du du lu jafe ci moom du lu jafe pour mu defal la loolu lu jafe ndax am na ñu mu ko defaloon am na ñu mu ko defaloon junj gi nga ko junjee la yoon wii ma bëgg nga teg ma ci mooy yoon wi nga tegoon ñoom diw loolu liñ ci mën a déggee mooy teg gim ci tegoon ñoom diw yow tamit mën na la cee teg mën na cee teg loolu muy benn ñaareel ba mooy tege googu xéewal la wala bokk yërmande la wala ngëneel la gu mu defal way diw kooku moom ki doon def loolu ku tedd la démb tey soog a ñëw ñetteel ba mooy eh, yow ci sa jëmmi bopp xam nga ne ña nga xam ne ñoom la teg cee yoon woowa ñooñu eh, ñooy ñaraw te yow mënoo egg ci ñoom mënoo egg ci ñoom comme mënoo egg ci ñoom nag da ngay yaan yàlla mu yéegee la ca ñoom dangay ngay junjaale loolu ci biir wax ji la nekk loolu lépp tëgginu siraat alladina ñu wasfe ko ñu melale ko as siraat al mustaqim loolu moo indi eh, maanaam sew-sew yi yépp am ci biir wax ji sew-sew yi yëpp am ci biir wax ji ndax ñooñu nga xam ne ñoom la yàlla euh, xéewale ñu aw ci yoon woowu ñooñu ñépp ñoo ciy dugg yonent yi ak shuhadaa yi ak saalihin mooy li yàlla doon wax ci alquran ca beneen saar di wax ne ulaika alladina an'ama allahu alayhim ñooñu mooy ñi yàlla xéewale mooy ñan mu ne minan nabiyiina والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا mu ne eh, ñooñu yàlla xéewale ñooy yonent yi ak ñi nga xam ne ñooy siddiqiin yi ak ñi nga xam ne ñooy shuhadaa yi ak ñi nga xam ne ñooy saalixiina gaa ñi baax ñi nga xam ne ñun suñu yaakaar yi tey ak ñooñu ñoom ñooy ñi jaaroon ci yoon wi ñooñu nag àgg nañ foo xam ne ñun mënuñu faa àgg ci sunuy jëf li ñuy ñaar yàlla mooy mu yëkkati ñu sànni ñu foofa walladina amanu wattabaatuhum zurriyatuhum bi imaanin alxaqnaa bihim zurriyatihim wa ma alatnaahum min amalihim min shay yaa ngi gis maanaam yàlla wax na ci alquran ne ñi nga xam ne ñooy maam ya te raw su fekkee ne sët yi jéem nañoo ñot ñot ñoti pour aw ca yoonu maam suñu dëggoo rekk te am ngëm gu pa euh, gu sax donte jëf yi matewu ko man yàlla ma jël leen aj leen ca ñoom maam yàlla nañ ko yàlla defal ñun ñëpp kon waxu aji ñaan gi ni ñu waxee ne ihdina siraatal mustaqim loolu dafa mel ne dafa wax ne siraatal mustaqim daal mooy yoon wi nga xam ne yaa ca gindi jëme ña nga xam ne ñooy say jaam ñi nga xam ne yaa leen xéewale ñi nga gën a sopp ñépp ci yoon woowa nga leen awale yonent yi saaba yi nitu yàlla yi aarifuuna billaahi eh, saalihuuna yi eh, siddiquuna yi shuhadaaw yi ñëpp ci yoon woowa la ñu jaar yoon woowa yàlla nga ma ca jaare yàlla nga ma ca jaarale yàlla nga ma ca jaarale yàlla nga ma ca jaarale googu nag Eh, li nga njëkkoon a wax laytaayal nga ko ngir tedd nga am gën a gaaw jëm ci yow waaye tamit junjaale nga ca ne yoon woowa ña ca jaar ñooñu mënuma leen a dab ci samay jëf waaye yàlla yow mi man lépp te lépp di xéewal ci yow yàlla nga ma jël yéegee ma ca kaw ñooña yéegee ma ba ma àgg ci seen groupe yi eh, alayhim nag mooy yaa leen xéewale loolu baat boobu baatu anamta mi ngi jóge ci baatu ni'ma ni'ma nag danañ wax ni'ma danañ wax naama ñaar yépp ci naim la jóge ci xéewal la jóge ci alquran am na am na loolu am na naama uli naamati wa mahilhum qalila danañ wax ni'ma timit baat boobu tamit ci na naam naima danañ wax ñetti baat yépp danañ ko wax danañ wax na eh, naima yanaamu danañ ko wax naama yanumu danañ ko wax na naama yanimu danañ ko wax maanaam mudaaricu baat bi dana nekk yanimu dana nekk yanaamu dana nekk yanumu ñetti yépp baax mooy eh, dund gu teey dund gu teey ak situation bu rafet eh, lan moo tax ñu ne ñu ne façon la maanaam ni dund gi nekkee ni mu ni mu neexee ni mu rafetee ndax tëggin wi ñu ko tëgg dañ ko tëgg ci fiilatun te fiilatun eh, loolu lañuy tuddee masdaru hay a hay a faalatun marra la fi'latun hay'ala marra mooy lu ñu def benn yoon buñ nee jalsatun benn toogin benn toog jilsa nag mooy aw toogin aha jilsa nag hay'ala hay'a mooy ni ñu tëggee euh, baat bi mooy tëgginu defin tëgginu façon la maanaam dañoo bëgg a wax ne buñ nee jilsa mooy ni mu toogee moo tax ñuy wax buñ nee jalsa nag mooy benn toogin toogul ñaari yoon benn yoon la toog jalsa jilsa mooy toogin naka noonu ni'ma tëggin woowa ni'ma mooy façon yi dundin façon situation bu rafet rafetaay bi moo tax ñu ne euh, ñu ne ni'ma cosaanal ni'ma nag xéewal yu ñuy yëg ak yu ñu mën a teg loxo yooyu la woon yooyu la woon euh, lekk mu saf dara euh, neex nooy sedd yooyu moo doon neexma foofu la daan feeñ waaye nag ñu jëfandikoo ci lépp loo xam ne bànneex la boo xam ne même bu fekkee ne maanawi la même bu fekkee ne loo xam ne njariñ li lu ñuy xalaat lu xel di daj la waaye du lu yaram di yëg waaw di yaram di yëg li nga xam ne moom lañ jublu ci neexma ji nga xam ne foofu lañ toll an amta alayhim mooy neexma joo xam ne moo xam ju ñuy yëg la ak ju xel di daj joo xam ne dara du ko sóob du ko suub ci loo xam ne lu koy gàkkal la waaye itam du mujjee fu ñaaw du mujjee fu ñaaw dafay daj lépp luy xéewali àdduna eh, ak xéewali alaaxira yoo xam ne dafa dañ ci eh, lépp luy gàkk-gàkk lépp luy gàkk-gàkk nga xam ne xéewali àdduna yi yi nga xam ne yàlla daf koy joxe ak yi nga xam ne nit ki mën na koo fàggu yooyu yëpp da ciy dugg xéewali àllaaxira yi nga xam ne ruuxaani la ak yi nga xam ne yaram da koy yëg ak yépp dafa nekk ci baatu an'amta alayhim moo tax an'amta alayhim tënk ko ci benn jamono siraata alladina an'amta alayhim yàlla eh, yoon wi nga xam ne eh, yaa xéewale ñooña ña jaar ci yoon wa bu ko mënoon naa wax ne yaa leen xéewale ci àdduna nga xam ne bu boobaa àllaaxira day dàqu mënoon naa wax ne yaa dem xéewal ci alaaxira su boobaa àdduna day dàq waaye yooyu yëpp da ko xasaf mooy yoonu ñi nga xéewal xéewal yooyu mu sax daf koo soxla moom jaam bii ñaan daf koo soxlawaale te xéewal yooyu amul dañ ko dindi ci jamono masluwatu zaman kenn waxul jamono jii lañ leen xéewale woon xéewale leen jamono yi kenn waxul façon xéewal bii la du façon xéewal bii lépp loo xam ne xéewal lay tudd dafay dugg ci laaya ji su boobaa maanaam jëmmi ñaan gi ngay ñaan yow dafa mel ne yaa ngi ñaan lépp luy xéewal mu wàcc ci yaw eh, yaa ngi ñaan lépp loo xam ne xéewal la waaye nag li ëpp ci li nga xam ne moom la xel di daj ci biir wax ji mooy xéewal goo xam ne dafa jë dafa jëm ci gindiku dafa jëm ci hidaaya ndax dafa waxoon lu ko jiitu ihdina siraatal mustaqim su ko defee loola mooy mooy li ñuy jiital ci ñaan gi waaye lépp daf koy topp tamit eh, eh, hidaaya jooju nag dafay nekk hidaaya boo xam ne gindiku goo xam ne dafay laal gindiku goo xam ne nit ki yàlla kese moom moo ko mën a defal eh, walla mu nekk loo xam ne nit ki mën na koo fàggu mën na koo fàggu loolu lépp dafay dugg ci biir li jaam bi di ñaan yàlla na ma ci yàlla gindi ci yoon woowa yoon woowa mooy yoon wi nga xam ne ñi yàlla xéewal ñépp ci yoon woowu lañu jaar ci yoon woowu lañu jaar yoon woowu nag mooy yoon wi yàlla bëgg yoon wi yàlla bëgg ñi nga xam ne ñoom la yàlla xéewale nag mooy ñi nga xam ne yàlla dottil na ci ñoom lépp luy xéewal jumat sëkk euh, mooy euh, te xéewal googu li muy wone kon maanaam liñ ci mën a déggee mooy gindi gi leen yàlla gindi jëmmi hidaaya jëmmi gindiku loolu kon neema la waaw te ñi ñu xéewale xéewal gu mat sëkk sëkk mooy ñi ñu gindi teg leen ci yoon wi ñaari baat ñaari mbir yooyu yëpp danañ ko déggee ci siraat alladina an'amta alayhim an'amta alayhim mooy yaa leen xéewale te dafa waxoon ihdina kon ñi ñu gindi teg leen ci yoon wa ñooñu dañu leen defal xéewal kon gindeeku gi tegu ci yoon wi nekk loolu rek xéewal la moo tax ñun dañuy juum lu baree baree bari ndax ñun lu ëpp ci lu ñuy sant yàlla ci wàllu am-am la xaalis la wala aaji ju faju wala euh, situation bu rafet wala euh, ndénk dara lu la yàlla dénk ci poñaxtitu àdduna wala yu mel noonu lu baree baree bari ci sunu ñaan ci sunu sant yàlla alhamdulilah lool la. fekk ne xéewal gi gën a rëy mooy nit ki nekk jullit nit ki nekk jullit di julli loolu moo ëpp doole ay milliards ëpp doole ndombal tànk gu mën doon ëpp doole lépp moo tax mag ñi dañ daan jàngale ne dañ daan jàngal taalibe yi sufiyanke yi dañ daan jàngal seeni taalibe ba ci ba ci sunu mag ñi Sénégal dañuy wax loolu lu bare bare alhamdulillahi ala ni'matil imaani wakafee bi min nicmatin maanaam dañuy wax ne yàlla ñu ngi lay sant te loolu cant gu siiw la gu ñëpp maanaam ñëpp dañ ko daan wax seen taal pour delloo taalibe yi ne leen addunaak euh, xaalis ak otoog euh, ndombal tànk ak lépp nekk jullit moo ko ëpp doole foofu moo tax ñu daan wax ne ñi ngi sant yàlla ci xéewalu lislaam waaw ci xéewali lislaam euh, te doy na xéewal te doy na xéewal moom lislaam rek nekk ci doy na xéewal ca raaya sëñ abbas ba daf doon wax ne ala nicmati l billahi waxdahu wal islaami wal ixsaani urdifuha di sant yàlla ci xéewalu lislaam xéewalu ñu nekk euh, dugg ci limaan xéewalu lixsaan bokk ci tasawuf yooyu yëpp ay xéewal la waaye xéewal bi gën rëy mooy nekk jaamu yàlla nekk ab jullit di jaamu yàlla loolu mooy gën a rëy ndax yone saasam dafa wax ne ñaari ràkkaay fajar moo ëpp doole àdduna ak li ci biiram àdduna ak li ci biiram lépp a ngi ci di ñun liñ soxla lépp ci biir àdduna la nekk ci àdduna ak li ci biiram la te loolu ñaari ràkkaay fajar moo ko ëpp doole kon léegi julli juróom yi kon léegi gëm yàlla gi kon léegi maanaam yu baree baree bari yooyu nga xam ne ñoo ñoo fawxa ñoo féete kaw li nga xam ne mooy ràkkaay fajar ñooñu fan lañuy ñuy kon lan la ñuy tollool ci xéewal su fekkee ne ñaari ràkkaay fajar ñooy tolloog àdduna ak li ci biiram kon yi nga xam ne ñoo raw ñaari ràkkaay fajar ñoom fan lañu féete eh, kon dañuy wax ne alhamdulillahi ala nicmati al imaani wa min nicmatin maanaam loolu dafay doy nekk ab xéewal ña ca yàlla jaarale nag ña nga xam ne ñoom la yàlla xéewale ñu jaar ca ñu jaar ca yoon woowa ñoom ñooy ñi gën ci xeet wi su ko defee ñi gën ci xeet wi loolu euh, ar rusulu wal anbiya ñoom ñoo ci jiitu mooy yonent yi ak ñi yàlla yónni ñooñu ñoo am xéewal gi gën a mat su ñooñu jàllee saxaaba yeeg taabi'un yeeg euh, ba ci sunu mag ñu baax ñi ñi nga xam ne ñoo ñépp ñooy alladina anaama allahu alayhim ñi yàlla jaarale ci yoon wi kenn munta wax nag ne alladina anaama allahu alayhim nan lay nekkee ñu njëkk ña nan lay nekk nan la ci lislaam di bokkee te lislaam nekk lu bees te ñi yàlla ji yàgg jaarale ci yoon wi ñoo ñoo jiitu lislaam maanaam xam nga buñ ne yonent yépp ci ci euh, kii boobu la ñu jaar ci yoon woowu lañu jaar euh, te ñoom ñoom ñoo jiitu lislaam kon naka la lislaam nekkee lu bees nekkee lu ñëw ci gannaaw ba noppi euh, mën a représenter yoon woowu loolu lii mbir mi mooy maanaam islaam ci boppam mooy li ñëpp mosoon a jaar maanaam islaam benn mbir la lislaam ji ñu xam ni dafa ñëw ngir tëj loola rek waaye lool lépp ci benn mbir la moo tax baatu lislaam yàlla doon ko utilise ci buy wax ak yonent yépp même buy melal seeni xeet loolu la leen di melal ña ca gëm yàlla baatu lislaam moo tax yaqub doon wax doomam ya naan leen falaa tamutunna illaa wa antum muslimun maanaam bu leen faatu mukk te fekkul ngeen nekk ay jullit xanifan ma kaana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kaana xanifan musliman nga xam ne baatub lislaam mooy li nga xam ne moom la ñépp nekkoon moom la ñi jaar ci siraat alladina anamta alayhim asiraat mustaqim ñi ci mos a jaar ñépp ay muslimoon lañ maanaam way jullit lañ islaam baat boobu moom lañuy ñuy gàll ci seen kaw moom lañ leen di dàkkantalee Eh, moom lañ leeni melale loolu ca aadama ba ci yonent yu ba tey ji loolu benn mbir la ngir wone ne yàlla wone ne yoonam bi moom benn yoon la wa anna hada sirati mustaqiman mooy benn yoon boobu ci la ñépp jaar eh, ngir wone ne tamit eh, yonent yi li ñuy bari bari seen wuute yi seen seen woote yi wuutewul ñépp ci benn mbir lañ doon woote walaqad baasna fi kulli ummatin rasulan an ibudu llaha bu taagut ci la ñëpp doon woote nañ jaamu yàlla te bàyyi lépp loo xam ne caaxaan la lépp loo xam ne bokkaale la lépp loo xam ne lu dul yàlla la ñu sori ko moo tax mu bari ci alxuraan eh, ni yonent yi di waxee ku ñëw rek da nga naan an ittaqullah eh, an yabudullah wattaqu an yabudullah wattaqu ragal leen yàlla te jaamu ko ragal leen yàlla te jaamu nga xam ne kon seeni woote ñoom ñëpp benn la kon ñoom ñëpp ay muslimoon lañ waaw kon loolu Idriss Seck doon wax mënu ci am ñaan ay juif ak ñee ñooy juif yeeg ñii ñooy arab yeeg ñii ñooy nangam lislaam moo am lu dul lislaam neen la inna diina inda allahi lislaam waaw Euh, li nga xam ne mooy ñaan gi te mooy ihdina siraatal mustaqim euh, daf lay jàngal ba tey ne alquran buy ñaan day ñaan li nga xam ne mooy li sax li neex li nga xam ne euh, mooy li ëpp solo ngir nit ki ñaan ko ndax nit ku nekk loo ñaan lu nekk mën na am ayib wu nekk ci biir ñaan ga lu dul nag ñaan gi nga xam ne dafa jóge ci yàlla wala jóge ci yonent bi googu mooy ñi nga xam ne dañ ko sellal segg ko ba mat sëkk ñu tegal la ko siraatal ladina an'amta alayhim loolu ñaan googu bu la ko yàlla defalee amul beneen sikk boo xam ne day ñëw ci gannaawam waaye xéewal timit xéewal timit euh, dafay nekk pour mu nekk xéewal gi ñaan dafay nekk xéewal gi nga xam ne dara raxu ko ci ay sikk-sikk dara raxu ko ci ak naqari dara raxu ko ci kii te loolu mooy yoon wi nga xam ne moom la ñuy ñaan mooy yoon wi nga xam ne képp ku baax ca nga mos a jaar te biir wax jooju daf caa am ne euh, yàlla maa ngi muslu ci weneen yoon wudul yoon wi tamit loolu mënees na ko dégg ci biir wax ji ndax yoon wudul yoon wi même bu naqaree bu neexee ci tàmbaliment bi dana naqari ëllëg mooy li ngay gis ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi gëmul yàlla nekk ci ak xéewal nekk ci ak nangam nekk ci ak nangam loolu du dara ci mbir yi ndax teguwuñ ci yoon wi ku teguwul ci yoon wi moom sa daw lu mu bari bari bari daf lay gën a soriloo sa borom rek yàlla nañ ci yàlla musal kon loolu mooy li nga xam ne mooy siraata alladina an'amta alayhim ci tënk su ko defee foofu lañuy teg seen baaraam su ko incha allah taala eh, ñu door a ñëw ci li nga xam ne moom mooy tëj suuratul fatiha bi te mooy gayril maxdubi alayhim wala daalin ñi ngi jéggalu ci guddal gi di baalu àq di leen baal salaamaaleykum wa